Boom! gars yi bala ñoo commencé nag inditi naa xéwal bu neex xéwal bi nag étudiants yi ñoo moom a ah, waaw waaw xéwal bu neex a neex la sax ndaxte xam naa ne lii dina arranger étudiants yu bari dafa am ay étudiants yu basé wu fële sa France tuddee seen bopp parcours France pare pour jàppale képp kuy étudiant pour defaral leen seen prescription jàppale leen ngir ngeen am ay papiers pour seen démarche consulaire aussi ngir ngeen am seen visa te li ci gën a neex nag accompagnement bi c'est du début à la fin ba tax na bi maa ngi leen koy bàyyi ci suuf description bi kon boog yéen étudiants yi gaaw leen gaaw ndaxte mbir mi neex na te noonu la xéwalee yéen waa parcours France daal yéen a fi ne dëgg du romb nopp gars yi bala ñoo commencé vidéo bi nag képp koo xamante ni abonné goo maa ngi lay invité nga gaaw ñoo abonné te aussi ngeen partagé vidéo yi ngeen like vidéo yi surtout da leen like bu baax a baax a baax dañuy yokk doole chaque jour qu'on dort qu'on se réveille y a de nouveaux dossiers encore Adji Sarr Sonko ak bàjjanu Adji Sarr di mettre El Diouf non eh, désolé de maître. nga ne. plutôt ni yaay Adji Sarr bu bokk tak yaay Adji Sarr dara. mais c'est honte. gis nga ma suma kanam gi ni melni ni bu fanaan mhm. amna ñuy joy ngir man moyen mais nak tay ji lima nakari neexuma de pourquoi awaay man mi nak la mëna xey ci mbekté wa wa wara défé question réponse bi di rek di xey di jakaro karam metti elas djub bi tamit moma ma ah! maître lan la lu xew voilà testaren bi bureau juge bi waaw bi mu ñëwee toog juge bi dama ni ko Ousmane mhm. ku ñu wax aji sar nee waaw da nga yegg ci mom ma bëggoon a xam yow lo ci xalaat eh! maître taxawal. man daal je suis peur daal. kon yow ba tey yaa ngi ci dossier Adji Sarr ak Sonko bi nii. nee leen dossier bii. waaw waaw. ngeen ci mos dégg tëj nañ ci Ousmane Sonko de. incha allah. voilà nag lii na olof Ndiaye di wax naan tungi na di teew ñu nataal te nettali ci gémmiñu borom la dàqee. du ngeen mos a dégg dossier bii tere na Ousmane Sonko nekk président de la république. loolu de leer na naññ. te lu ma leen mos a wax gis ngeen ko. dëgg du romb nopp. yow kon yow foofu nga toll. kii dof pilis la. toogal ba ma ñëwaat ci yow di nga xam ne mi ngi bëgg a neex wala neex na ba noppi. ah dee waay de. <laughs> mais nag tey jii li ma naqari neexu ma de. pourquoi. awaay ah man mii naka laa mën a xëyee ci mbégte. waaw waaw. war a defee question réponse bi di cawrate di xëy di jàkkaaroo kanamu maître El Hadj Diouf bi tamit. gis nga ma suma kanam gi nii mel ni dëxin bu fanaan. am na ñuy jooy ngir man. <laughs> ok Ousmane Sonko mbaa xam nga ne yow sa audition bi juraan na coow lu bari ci réew mi. wax jig bëri na. waaw ku nekk di inventé. lu ne bind nañ ko. moo tax man ma bëgg a xam bi nga demee wuy ji ci audition bi ñaata question nga fa jëlee. doyen des juges ñetti laaj la ma laaj ñett. léegi bu njëkk bi moo siy ban. mooy est-ce que di nga nangu joxe sa deret pour ñu def test ADN. mu ni. ñu ne man ma jox leen sama deret. kan yow de. man Ousmane Sonko. après ñu doyee ko lan. ñu yóbbu ko xaw ma fan. daal di génn ne ah conclusion yi mooy lii. ak rajo max rajo léegi yow lan nga leen tontu. may leen xanaa ngeen dem jëli deretu Bob Marley de. <laughs> asa deret nag yow. sama deret man mi waaw waaw. ilaa yow mi di du ngeen ci jot. ah yaa de ah joxe deret ak fi kaa toll nii day doy waa trop nag. kenn laaju ko deretam. kon yow kii buñ ko laaju deretam lan lañ ko laaj maître. tiflit rek. ah. buñ ko laalee rek même sa karaw lu laal ci yow rek mën na génn mën na jëm ca sa ADN. ah dee waay dee. léegi yow maître nga yaakaar ne ku nangul jeex deret est-ce que dina maye tuflit. sama tuflit sax du ngeen ci jot waxuma laa sama deret. pourquoi. parce que ñàkk mu ba foofu. fermement. léegi yow Sonko damay laaj. looy laaj. li may laaj mooy léegi yow bu nekkee dossier bi jox ma say tuflit wala jox ma sa deret moo ci des nag. kon de xam ngeen ni seen dossier jeex na. maanaam. du am lu toll ni toq ci sama deret. ah loolu de leer na nañu maître. moo gën a xa lu tax mu daw. <laughs> ah daw nag. nañ bàyyi nag ponkal. waaw. def li mu def ba pare. Mm-hmm. ay ponkal ñàkk jom. di wër télé yi ak rajo yi. waa di san rek naan deful dara. nga ne. waaye seet leen seen bàmmeel. kon yow maître da ngaa seet sa bàmmeel ba xam ne Ousmane Sonko moo def. man néew ma moo def carrément de. am ah, maître bàyyi ma waaye ak ni nga waxee nii dafa mel ni da ngaa bëgg a wax ne Sonko moo def. da ngay fen. <laughs> merci beaucoup jégal naa la man moom boo may seedeel sa jikko du ma métti. pourquoi. ndaxte Sénégal yëpp xam nañ ne yow looloo sa jikko. gis nga ma suma kanam gi ni mel ni dëxin bu fanaan mhm. am na ñuy jooy ngir man <laughs> te nag li Sénégal yëpp di lam-laame na maître comédien la wala du comédien tey dinaa ko montré Sénégal yëpp bañ xam ko moo tax saa yu ñu ko tàllalee micro ba ñëpp foog ne maître des conférences de presse. mu jël émission Aba Sow tuddee ko maître Sow nekk fa naan des comédie foog ne nit ñi xamuñ ko nit ñi xam nañ ko bu baax a baax comédie rek nga nekkee. dëgg du romb nopp. moo tax tey Sénégal yëpp dina yëg ne yow doo doon conférence de presse de mais da daan maître show. ok maître yaakaar naa ne mën nañoo commencé maître show bi de. ok merci maître bëgg naa bala ñoo commencé fombal sa <laughs> waaw baax na fompale sa gémmiñ gi dafa mel ni dafa tooy moom tamit. <laughs> ok c'est bien c'est bien baax na baax na baax na su la tasee fer ok maître léegi testel micro bi euh, ba xam mi ngi cool bala ñoo commencé. ok c'est bon c'est bon mi ngi baax mi ngi baax. <laughs> waaw tey nag sama gars yi ñu ngi leen amal émission bu ñu naan. Maître Show ñu jëlee ko ci Aba Show. dëgg du romb nopp. waaw tey nag je pense que ne mën nañoo commencer ma ne ma ne kii bëgg a ñëw kan la. Maître El Hadji Moustapha Diouf votre fidèle serviteur. ok maître lan nga ñuy servir seen Maître Show bi. ku mën sa morom duma. waaw xam ngeen soo ko mën aji saar la yeneen nag xale bu jigéen mu daw ba am 19 ans ay waay ak a ñàkk ñàkk a ñàkk yërmande l'histoire de la robe rouge Qui nous défie qui fii kii war na fee ñëw paniquer dit pat pat pat pat pat Rai. Rai, Rai, mën raay pas chèvre. Rai, c'est ma belle. Rai, rai. Rai, c'est ma belle. Rai, oh, rai. non nous disons non non nous disons non est la tire, te disant non. Non, te disant non. est la tire, te disant non. Hé, tiens, ñamul ci biir. beneen tapet bi le ne ko doo génn sa kër mu ne dugg leen seet duggu len rek duggu len rek. ma ne est tapet tapé ñooy ngedd ngedd yow on vient devant ta maison en tant que maire de la capitale on te dit tu dois pas sortir tu dis duggu len seet. du fee rek du fee rek seet non ce pays là fu jëm sa waay eh jëm sa biir kër mu ne dama bëggoon a julli ci jumaa waaye kër lal lal lal lalaat ñam ñam ñam ñamaat loolu lañ ko top dagg di ñam di ñam di <laughs> léegi yow maître Adji Sarr waxu la woon ni dafa biir. Adji Sarr day fen rek néew na daa biir ana doom ji. ah dee waay dee <laughs> yàlla du nit. voilà ñun ñoo ko gisandoo yàgg naa leen wax ne maître day comédie te bàyyiwu leen ci xel maître heure bu def conférence de presse boo leen xoolee li muy wax bu baax ngeen déglu ko ngeen xam ne kii day comédie moo tax ma leen wax ne gis nga ñi nekk Abba Show ëpp maître talent dañ koo ëpp chance moo tax ñu nekk fa gis nga maître bu demoo Abba Show wal <laughs> ngeen gis comédien bu ngand kii day comédie à chaque fois kii comédie képp la fi nekkee quoi. dëgg du romb nopp. xam ne lii moom injustice képp moo nekk ci réew mi quoi réew moo xamante ni ku wax ñu jàpp tëj boo ŋaaŋee ñu jàpp tëj boo reetaanee ñu jàpp tëj tamit saa lii ba kañ. ah yàlla suñu borom de moo ëpp ñëpp doole. waaw te moom mooy borom kattan mooy borom doole mais nag yàlla baax na. waaw te dëgg rek njëkk te mooy mujj. justice pour Pape Alé Niang nañ ko yemale foofu ba beneen yoon man de lii laa wax mbaa yéen tamit loolu ngeen wax. Ah, man ñun lii nañu mën a wax Ndoye Ndiaye. bu ba beneen yoon amin ferme-moi <laughs>